salaamaaleykum youtube alhamdulilah barikàlla na ngeen def maa defu leen dara alhamdulilah man de dama ñëw tey pour def vidéo bi te vidéo bi sax de waajuma ko waaye fu jaar ma def ko rek ndax wax ji loo xam ne la mu ngi dem àdduna si yëpp koy déglu léegi te nit ñaa si wax different opinion te loo xam ne la bugguma si woon a wax foo bu ma déggee wax ji gis mu woon vidéo bi waral wax ji waaye gannaaw gi si laa soog a di gis vidéo bi tey but <sighs> just unbelievable dafa am ñaari xarit yoo xam ne ñun ñu bari dañ leen yàgg a Facebook di leen seetaan te di nawloo seen liggéey bu baax bi nekkee suñ communauté bi di wax yu baax di santaane nit ñi pour ñu def lu baax ñoom ñaar yépp waaye kenn ki moo ko dee gën a def ñuy jotee biñ jotee nag bëgguma tudd seen tur yéen ñi xam seen yéen ñi xam gaa yi xam ngeen gaa yi soo bëgguma tudd seen tur dinaa def seen nataal yi rek fii waaye duma tudd seen tur because bëgguma ngeen di dem di wut gaa yi you di it's just complicated anyway def nataal yee tudd tur yee benn la boo duma tudd seen tur xam ngeen daal wax ji nu mu demee so lu tax ma see wax mooy parce que ma nekku ne yëpp laa dee wax dafa des si topic bi lan la waaye xam ne yenn topic yoo xam ne du ko dee wax daf hëpp suma gémmiñ ak jos dama dee xool tamit su fekkee topic bi lu muy yàq nag lu bari la fu jaar rek ma wax si so dafa am ñaari xarit yi nii you know like I ñu nekk di xool si ñoom di jàng si ñoom ay hat saka kenn ki dee gën def vidéo you know moo dee gën a def vidéo lu si bëri bi jotee moroom ki xaw ma lu ñu jotee waaye moroom ki ñëw na daal Facebook def vidéo xamul lu mu yàqut keneen ki ki nga xam ne moo dee gën a def vidéo xamul ko kële yàqut léegi nit ñi jël nañ wax ji nag di ko ñeneen ñi di ci def ay programme di ko wax di ko sottilante ñeneen ñi di ko kind of ree di kind lay ree keneen ki ak ñeneen ñi di you kenn ku nekk di ko gisee niñ koy gisee ak ñeneen ñi di si wax wax yu baax di wax ne rek def si vidéo di wax ne rek lii dafa ñaaw trop suñ community bi waruñoo def lii boot like I said bugguma si woon a wax waaye fu mu jaaree ma wax si parce que léegi ñëpp a ngi siy wax and also gis naa vidéo bi nga xam ne moom la kii def moom laa doon seetaan booba tey dama waaru vidéo bu vidéo bu ëpp wan awa la te wan awa bi yëpp fa ko nekk di xas morom ki nga xam ne ñaar fukki at ñu ngi doon xarit muy wax loo xam ne depuis bañ xamantee xees bañ tasee xees ca iskul ba bañ njëkkee tasee sa iskul ba keroog lu ko kooka def lu ko naqari balaa ñuy do xarit sax wax na loolu tamit te loolu noonu mu ne bañ xamante léegi ñaar fukki at ñaar la waaye bañ njëkkee tasee lam ko defoon lu ko naqari wax na loolu tamit soo wax na si vidéo bi yoo xam ne lu ñu war a jàng moo tax ma bugg a def topic bi ak man nu ma gisee vidéo bi rek in general loolu laa bugg wax suma xalaat itam ndax vidéo bi loo xam ne la si suñ community bi ñun ñu si ne di wax ak ñun ñu ne si community bi rek vidéo bi dinañu defar danañu yàq so it's better ñu génn ñun ñuy wax ci community bi ñu wax moo gën ñu lëm-lëmal vidéo bi rek daw ko rek dal di koy lëm-lëmal dal di koy baax ndax wax jii dafa ruslu pour ñu wax si ndax lay ka seet ñaar yëpp ñoo xam ne la ñu ñi dañuy roy si ñoom di kàddu yu baax yi ñuy jàngal ci Facebook bi xat yi saka kenn ki ki xas nii kon nag lii bu mën a xew ñun di ko lëm-lëmal dafa ruslu pour wax si te bugguma si woon a wax waaye fu mu jaar ma wax si li suma xalaat again lii dana nekk suma toppi boo xam ne si suma xol bi la jógee comme suma toppi yi day jógee suma xol bi te naqadee wax rek ne suma wax yu bëri xam ngeen ne noonu la dee demee moo tax man suma page bi duut pour ñëpp ñépp mënuñoo du suma fans parce que man su ma dee wax dëgg dama ko dee xoolee si loo xam ne suma ma féebuwul sax su feeboo mu rus loo ma sax xàdduna kenn mutut waaye doomu aadama dañuy try pour wecceeku bët bu set di jéem a get better that's all kenn mutut so léegi like I said ñi bañ nekk xarit ay xat ñoom ñëpp Gambien lañ waaye ñun ñëpp Gambien lañ Sénégalais lañ ñëpp a jaxasoo soo léegi buñ dee xarit ay xat kenn ki koo xam ne la nit ñu dañ ko xam Gambie dafa famous Gambie mu ngi fay def liggéey yu baax ni ñi di ko gis morom ki jotee moom xaw ma luñ jotee waxul sax exactly liñ jotee yëpp fa ne kook noonu vidéo yi muy def moom lay gaaru xaale ndax kook noonu dafa wax nangam nangam si vidéo yi ne jigéen ñi ñuy xañaane seen moroom yi jigéen ñi nangam ki nangam kon moom kooku lu moom lay wax te kooku fa wax ne nit ñi toog defuñ dara kon moom kooku loolu moom lay gaaru xaale mu wax fenn mooy ne moom bi mu tasee kii ñaar fukki at ak ñaar si gannaaw dégg loolu de booba ñu ngi tasee ci iskul mu ne ci high school mooy école boo rombee primary school bi njëkk a jàng beneen bi ci topp mu ne ba ba njëkkee gis kooku ba mu ko njëkkee gis fañ toogoon si classe bi mu ne kooku noonu di ñëw dugg si mu gis kooku noon mu ne la mu ko njëkk a compliment daal ba mu ko njëkkee moom daal mu ne la ko njëkk a compliment compliment mooy wax ju rafet daal si nga wax wax ju rafet si nit mooy nga compliment ko mu ne la mu ko njëkk a wax mooy yow sa bëñ yu rafet yu weex yi kaar sa bëñ yi dee neex na ma ndax xaw ma nag ko ne sa bëñ yi day weex na te rafet mu ne kooku ne ko waa sama bëñ yi de ma ko dee dama koy raxas moo tax mu weex xanaa yow dooy raxas sa bëñ yi ok li ma bëggoon njëkk a wax mooy vidéo bi yëpp nu ma ko gisee mooy kii mun naa xam lu mu wax mun naa xam yenni dëgg la mun naa xam yëpp dëgg la mun naa xam yenn yi lu si bëri du dëgg waaye yenn yenn si li mu wax bàyyi force mu nekk dëgg parce que gars yi ñu ngi nekk xarit ñaar fukki at ak ñaar du mun a nekk ne lu mu wax yëpp fen la déedéet waaye mun naa xam yenn yi nekkul dëgg wala yenn yi daf ko exagéré exagéré mooy comme nga jël wax ji defar ko ba mu yokk wax ji daal ndax mu niru lu bon wala mun naa xam tamit yenn yi du dëgg dafay wax rek parce que dafa mer loolu laa bëgg ngeen njëkk a xam ne man noonu laa gisee vidéo yi mooy suma first point bi gisee vidéo yi léegi li ma gisee vidéo bi yi ci des dinaa ko wax at the soo léegi mu bu mu ko waxee ko sa bëñ yi weex na kooku ne ko sa bëñ yi dey soo bëñ yi dey koy raxas moo tax xanaa yow sa bëñ yi doo koy socc doo koy raxas mu ne moom si la si si si la jëlale loolu gars yi con noonu la gars yi continuer daal noonu lañ njëkk a xamante noonu la njëkk a tasee loolu mooy force expérience bu mu xam si jigéen ji mooy lii ba pare mu continuer nekk ak moom xarit wax na wax na wax yu bëri xam na yu bëri yum wax yoo xam ne mu ne secret jigéen ji la xam na yu bëri yum wax it yoo xam ne mu ne jigéen ji def na ko ko te gaa yaa ngi continuer nekk xarit ba tey lay I said soo gisee may wax si vidéo bi pour luñ si war a jàngee la ndax àdduna fay war a jàngee si yu baax ak yu bon loolu rek moo ñuy mën a def ñu nekk beeta paase ñu tane ñu wecceeku tuuti ndax nit kenn matul sa mistake yi nga def yow nga see war a jàng sa mistake yi moroom nga see war a jàng vidéo bi mistake bu rëy la si borom te xuur na ma ne borom ki ko def dana ko réccu loolu laa njëkk a bugg a wax tamit bala maa continuer léegi ba mu waxee ne moom kii bëñam yu weex yi def neex na ko kooka ne mu ne kooka ne ko sa bëñ yu weexut xam nga yow yow xanaa nga garu sotti sa bëñ yi lool mën naa am dëgg la mën naa am du dëgg waaye foog naa ni dëgg la ma koo foog rek man lu si ma xol bi rek laa leen di wax de xam ngeen ma foog naa ne loolu mën naa am dëgg parce que jigéen ji ba ñu dafa weex te mën naa am Afrique soo suñ waxee nit ne ko yow sa nangam bi nangam la wala sa lii lii nit ki mën na leen mun naa wax ne leen you know like sa bëñ de boo ko soccee dana weex yi know that kind of thing like xëy na borom minéewu ko comme saaga la wala xas la waaye isa African xam nga ñu africa ni ñuy waxee rek. soo mun naa xam loo dëgg boo boobu si yu ma xala gëm la bokk and then li ma point bu tax ma indi lool si wax ji mooy jigéen ji moom si boppam bëgguma wax seen tur yi lay ko seet bi ko kii waxee ne ko sa bëñ suma bëñ yi dafa weex parce que ma koy socc moom lool si moom ak ku ñu koy déglu yëpp mooy ne kooku mu ngi koy xas de ko wax ne ko yow xanaa sa bëñ yi doo koy socc parce que wax na ne kooku daf ko wax sax ne ko xanaa yow sa bëñ yi doo koy socc kon mooy ne kooku nit ku arrogant la te bon te ñàkk kersa léegi lu ma bëgg a laajte jigéen ji mooy kon moom lu tax mu continuer di nekk ak kii xarit ndax man nit koo xam ne mosuma laa gis di jàng ecole école taseeg yow ci classe bi nga ñëw di war a bokk ak man school daal ma ne la sa bëñ yi rafet na weex na te set nga ne ma sama bëñ yi dafa set ndax ma koy raxas xanaa yow doo raxas sa bëñ yi du ma du ak yow la bañ duma la beddi waaye duma dux ak yow xarit waaye xëj na dafa nekkoon xale moo tax parce que lii mu ne ñaar fukki at ak euh, ñaar si gannaaw la te ñii ñoo ma mag xam naa luñ ma magee bëriwut nag waaye ñoo ma mag soo xëj na time boobu noonu waru ñaar fukki at sax moom si ko xamu ko da tay ba tey xale la woon soo léegi mu continuer nekk ak jigéen ji xarit waaye li tax ma ekkati foofu si wax ji mooy ni ñun man de man maa ngi jàng loolu wax naa leen ne xat bi yëpp man xat bi xati we xati wecceeku la si man xat bi su ma wecceekuwul rek dootuma wecceekuti su ma yeneen jikko yi ma war a wecci tuuti parce que nit kenn matut nit ko amul jikko yooyu wecci xamut te du ma sa xam ba bu set rek mu xam yeneen jikko yu ñu war a yokk suñ jikko yi xam yeneen wala jikko yu ñu war a dindi so lu may gën a jàng xat bii tamit mooy communication ku nekk xam na ne man xaw ma good communication skill parce que su ma dara naqadee dama di ñëw rek wax koo you know wala stuff and then you know just this African thing <laughs> so waaye si man jigéen jii nii hmm, warutoon a nekk xarit ak koo xam ne mu ko wax lool benn ñaar jigéen ji su fekkee moo wax loolu warutoon a wax lool ok good léegi dinañ dinañ jàll si léegi leneen léegi li lii war a jàng foofu mooy nit ki ku la wax ne nangam bi rafet na wala sa nangam bi nii nee ko jërëjëf rek thank you very much apprécié naa ko yow tam soo xamee looy wax su moo nu baax nga wax ko soo ko xamul nga noppi comme su fekkee ne façon situation yi xew na na leen ko xandulee lay daal parce que ñu nit ku sax dañ miin comme ça nit ne la yow ami rafet nga de nga ne ko haay man waaye man xaw ma lii wala man lii ma la haay dëgg man mi ñaaw mii wala nangam soo dañ dee miin nit wax la dara rek doo ko mën a jël rek nga ne ko jërëjëf thank you loolu yëpp because bi ñuy mag suñu waajur yi du ñu yaree noonu di ñu di ñu appusé di ñu woon suñu rafetaay ak yooyu noonu xamuñ ni ñuy jëlee compliment daal so loolu lañ war a jàng foofu ak nit ki soo tasee moom mu woon la jikko boo xam ne neexul la torop for exemple bul continuer di ko def xarit ñaari yooyu lañ jàng foofu su fekkoon ne lii xam na good wala suñu dalee ñun rek ok leneen li ñu war a jàng mooy xarit boo xam ne xam nga ko te doo jubóo moom te doo ba parce que moom mu ne xaj yi yëpp wax na ñaata yoon wax na ay yoon yoo xam ne xuloo na ko kii dañuy toog ay ñaari xaj duñ wax ni ñi waxaat jubale leen ah xarit boo xam ne yaa ngi toog di di xam parce que wax yu bëri mu ngi wax si vidéo bi nee na waxtu sàngam ba nga xamee du doon wax ak yow bañ xamee problème fàtte nga waxtu sàngam bañ xamee problème fàtte toogee ñaari xaj duñ daan wax fàtte nga waxtu sàngam bañ problème dëgg la xam naa ni ñaar fukki at ak ñaar nga nekkoon ni xarit dafa yàgg fu mu jaar ngeen jotee waaye nan lañ baqeel xarit boo xam ne nga koo xam rek ngeen di jotee jotee yu bëri si saasi wala ngeen di jotee ay ñaari at ñëwaat nekk xarit jotee ay weer ñëwaat nekk xarit jotee ñëwaat nekk xarit nañ leen di baqeel façon xarit yooyu mooy ne suñ jikko yi àndut te mooy ne lu yàgg-yàgg rek danañ mës a duloo duuloo bu mag boo xam ne lu mel nii dana si xam bala lu raw lii mën na si xam so ku xam xarit del seetlu ni muy waxee yow seetlu ni muy defee yow seetlu tamit ñaata yoon ngeen di xuloo ak ñaata yoon ngeen di tongoo di juboo jubooxaat su dee tongoo di jubooxaat yi bëri na baxal xel xarit boobu lu laa bëgg wax foofu leneen lu ma bëgg a wax mooy ñun kenn matut moom mii tey génn weer xaritam bi wax yi nga xam ne nii moom la ko xamal ak lu ko xamalu yëpp la ka seet xaw ma ndax vidéo bi lu mu si wax yëpp foogu ma ne lu mu si wax yëpp dëgg la foog naa ni xam na si doo dëgg ak xam na si yoo xam ne daf ko yokk def ko mu gën a lu baat ak xam na si yoo xam ne du dëgg loolu laa foog man mën naa am yëpp dëgg la mën naa am yëpp du dëgg waaye man lu ma foog rek laa leen di wax léegi vidéo bi nag lim yàq moo moo moo ëpp lim def moom dafa def vidéo bi mu ne pour wax nit ki jikkoom ji la bëgg a wax nit ñi ah waaye li ko vidéo bi yàqal moom moo ëpp li ko vidéo bi di defaral ndax ñenn ñenn nit ñi bañ jigéen ji ak moom si boppam xolam bi ni mu tàngee si jigéen ji nii seen xol yi mën naa sedd this moment waaye nit ñi nga xam ne ñoom moo ñoo koy xool te génnee seen yaakaar si moom suñ ko xooloon dootuñ ko xoolooti jos di ko xoolee nit ku soxot te xañaan te bon te ñàkk sutura te man a weer nit te te ñuul xol nit ñoo ñoo ëpp nit ñi nga xam ne seen xol bay sedd si vidéo bi ndax nit loo soxot soxot soo wétee da nga xam ne doo bëgg a nekk ak xarit ñaar fukki at ak ñaar mu ñëw toog di wax depuis foos dee bam la mitee ba tey li nga ko mas a def yëpp mu di ko wax te moom waxut lim la def loolu nit ku wét ku ne da xam ne doo bëgg a xarit bu la def loolu su fekkee ne ngaa bañ jigéen ji muy xasit nañ waxante dëgg rek man xaw ma jigéen ji muy xas du maa moom xarit mosuma koolanteeg moom waxtaan ak moom do xarit déedéet foog naa benn yoon la mos a kool bu fekk maa ngi defoon comédie vidéo bu foni loolu yàgg na temps bu ma di wax waxi faana faana mu kool ne maa ngi ree bay bugg a dee that's it boo ba tey xamatuma ak moom kool loolu ma war naa ëpp ñaari xat fi mu ne mosuma xam ak moom koolante wala waxtaan wala doxarit waaye suma digganteeg suma bàmmeel mooy tax di wax ndax ñu ñëpp ci communauté bi lañ ne te wax ji lay kase nit ñëpp a ngi ciy wax so vidéo bi lay kase lu mu yàq moo gën lim moo ëpp lim def téeméeri junni yoon nit nag soo meree danga yàgg a def loo xam ne rëccu nga ko ne ñuy ñaan rek suñ meree ñu teg a dib ñu nokki aat ñu toog soo léegi su fekkee ne moom mer na mu ñëw su fekkee ne ñu xam nañ xarit ma baag si may dellu si xarit yi nga xam ne ngeen tey ngeen jubboo ëllëg ngeen xuloo su fekkee xam ne xarit xarit doo mën a boo xam ne du du ngeen loolu moom waxuma ko de xarit boo xam ne du ngeen ma sa jotee loolu du xarit dëggantaan ndax nit ki muy sa xarit muy sa doom muy sa lu ne muy sa even waajur sax léegoo léegi mu def la loo xam ne fu mu jaare nga teg ko ne ko yaa wala he papa man de nangama nangam bi suma sañoon du doxee nii nit ku du tooñ def la la naqari xamul sa bopp sax ngay tooñ sa bopp waaye kuloo yu hëpp werante yu hëpp tongoo yu hëpp yu jege xante si ay xarit war ngeen ko ba xel ñun ñëpp kenn matut lay kay seet te ñun dañ judd si culture boo xam ne ñun ñëpp ñoo judd si culture jëw ak gaaru xaaleeg you know dëdëdë whatever you call it sa ka ñun african daw aadama njaay yëpp si juddu waaye african is worse ku ne xam na loolu ñun ñëpp ku ko defut ku ku waxul sa bopp dëgg moo koy weddi waaye ñun ñëpp nit yàgg naa xam xarit ba pare nga toog si gannaawam nga xala wax loo xam ne you su toogoon doo ko wax you know like dafa des waxuma na nga wax yeneen yu hëpp yu soxot yoo xam ne ku ko dégg ne what what the hell waaye comme moom ni mu wax ne suturaam bu mu mas a xam rek kii weer na ko ñun ñëpp ku ko deful ku ko deful lu bëri def nga ko benn yoon ñaar wala ñett wala ñeent sa whole life loo xam ne at least nit wax na la ko ku la hóolu wala nga xam ko ak nit ba pare nga wax ko beneen nit kii because of whatever you know xëy na nga ko wax because yaa ngi mer wala xëy na nga ko wax because nangam wala xëy na nga ko wax because whatever you know nit kenn matul dafa des si ki ko wax nag ndax mu génn waxaat wax ji ba wax ji ñëwaat you know ba kooku yëg ko or not nit kenn matul suñ communauté bi nit ñi fi nekk te defuñ mistake boobu bëriwul let's just bi real like I said si noonu lañuy ñuy yaree ñun ñu si bëri soo waruñoo def loolu si jikko yoo xam ne la si jikko yu ñu war a wecc la bokk 100 pour cent loolu d'accord naa si doo mun a nekk ni ki xarit par exemple dara xew loo xam ne nii you def ngeen ko yaag moom secret top secret nga dem di ko wax keneen wax na ba ne xam na benn jigéen bu mu dëkkandoo dëkkatoon si néeg kii nii dem wax jigéen jëm dëkkandooroon si néeg bi ne ko yow kii nangama nangam fekk fa xuloo jëkk jigéen ji kooka dem ne ko xaw ma laan lan lan jëw ko sa kooka ba pare ñëw si moom ne ko diw nangam la la wax mu ne ba mu koolee kooka di wax ak moom ba mu xàkkee ko di wax ak kooka ne waxul la lim ma wax de waxul la lim ma wax si yow. nit ñu bëri dañuy def bu la nit jëwee si nit bu la nit ka xàkk see nga ne waxul la lim ma wax si yow. waxul la li ma wax si yow loolu du wax wax ko exactly lu la wax mu xam waaye soo ko dee waxul la li mu wax si yow man du ma la wax li mu wax loolu fen rek la ñu bëri dañ koy def parce que ñu ngi rus ñu ngi bañ pour bon la ne won la ne ñoom dañ bon moo tax ñu di la jëw loolu la ñuy koobarob su ko defee ñu ne la man lim la wax yee su ma la ko waxoon waaye man du ma la ko wax bëgguma saytaane loolu waxi fen la ak naa fekk so bu leen dee fall onto that ok so wax na daal wax yu bëree bëree bëree bëri yoo xam ne is insane fa mel ni nit ku ànd ak sagoom du ko def ndax nit ki bu lay kese boo néeg moom ay xarit ay ñaar fukki at ak ñaar fay mel ni sa doomi ndey la te nit ñi ku nekk gis na leen tu tuggeeda ba foog ne ay doomi ndey leen ñoom seen bopp ñu def ni ay doomi ndey leen di ñu ko won kon tey suñ jotee te kële ñëw tudd tutam ñëw defal ko vidéo mu ne jos kook li mu wax si vidéo yi moom lay gaaru xaale loolu jarut moom fekkee loolu naqadi na ko kon na ñëw gaarawaale ni ko kon waaye ñëw taxaw di huññi ay mbóot di huññi ay wax wax yi su duxee dëgg su duxut dëgg fukki nit buñ ko dégloo juróom-ñett yi yëpp moom lañ nawadi moom lañ yab moom lañ xeeb moom moo xamee lu ci bon yëpp ci moom lay ñëwaat moom mi ko def and that's the te nañ leen ñaan yàlla bu ñu mer taxa taxa def lii ba dina tukki ñu ñuy seetaan yëpp yàlla bu ñu mer taxa def lii leneen lu ma bëgg a wax mooy nit ki soo nexee moo xarit te wóor na la ne yow sa xol bi foog nga ne kii du xarit bu baax ci yow lu tax ngay continuer ak moom xarit moo ma jaaxal gis nga nit ñi nga xam ne dañuy neex ak ne xarit waaye foog nañ ne kooku du xarit bu baax comme moom ni mu waxee ne ñaar fukki at ak kii nekk ak xarit yëpp xam na ne kii baaxul mu ne xam na ne kii ñaari ñaari ñaari làmmiñ la xamee def two face la like dafay wax lii ba pare def lale hmm? te xam na ne mu ne kii yuusa la kii nangam xamul lu mu waxul daal waaye moom foo ko doon mu muñal rek ba si dafa bugg kii seen xarit gi daf ko bugg rek nangam nangam loolu noonu ba tey tamit naafeq la kon moom moo xarit bee xam naafeq kon parce que su fekkee moom wóor na ko ne xarit bi nekkutoon xarit bu baax si moom ah te lii dama koy wax ñun man de mënuma lu man mënuma xam xarit boo xam ne ma ko man xarit bu ma xam soo ma defee loo xam ne neexut ma dinaa la teg ma ne la nangama nangam lu tax nga def ko wala nangama nangam nu mu demee nga explain nga apologize ñu move on te soo continuer di ko def di ko defaat dinaa la bàyyi du ma la xiit du ma la mere dinaa la nuyu suma taseeg yow du ma nekk sa ennemi waaye du ma continuer di nekk tee yoo xarit ñun lii war nañ koo jàng tamit ni koo xam yaa ngi xaritoog moom waaye foog nga kii xas ma xaritoog ak moom dëgguwut moom du nit ku baax ba ko loo fay neexee di pretend loo fay neexee di nangu xarit gi di continuer teg ko ko man suma xarit gi ak yow wóoluma ko wala fooguma ne xarit xaritoo bu baax la parce que nangam ak nangam ak nangam def nga ma ko nangam ak nangam ak nangam def nga ma ko ni mu ko waxee si vidéo bi parce que moom waxul dara lu def nit ki foo wax rek ko def yëpp te xóor na ma ne nit ki defee benn yooyu fu mu nga def ko benn wala su la defee ñaar ñett ñeent boobu fu mu jaar def benn ndax nit ku du tooñ nit it xamul doo mën a nekk ak nit xarit ñaar fukki at ak ñaar te mosoo koo tooñ loolu xamul ñaar fukki loolu yàgg na boobu xamul bu doon sa doom la sax nga koy tooñ te kii xamul lu mu waxul jigéen ji ba xasaale doomam yi xasaale jëkkëtam xasaale famille bi njëkkeem yéeg yépp wax na ko ci vidéo bi te vidéo bi dafa def ba ku ko seetaan ku ko koo xam xamul ko moom xamul jigéen ji comme ni ko waxee ne ku ko xamul jigéen ji fa foog ne moom fa am glaat ne xam na ko ba wax loolu ku ko xamul xamul jigéen ji fay foog ne moom faxañaan te man si ñu foog ne moom faxañaan laa bokk man suma bàmmee rek amay tax di war xam ngeen ma duma fi ñëw di féet lii suma fii leen ñun ñëpp nit lañ lay kasee kenn matut ñun ñu si bëri ñoo mag si society fake society Africa society fake la mag nañ ci kër yoo xam ne gis nañ sax ñu si bëri suñu waajur yi di wax lii fële wax la le fële mbala dëkkandoor yi waaye ñun suñ ko jëlee yeneen jikko yu bon yooyu ñoo war a jàng nuñ koy weccee te admit de turu waaye nga nekk ak ne xarit téeméeri xat fukki xat ak juróom ñaar fukki xat joteeg moom ñëw di wax la depuis bés bu njëkk ba ba ci bës bu mujj bi li ngeen jotee te yow waxoo loo ko mas a def ku ko dégg ku wét ku ne xam ne yow yaa xarit bi ngay wax te lii dafa ruslu suñ communauté bi te dafa raglu soo gisee ma gën di si wax suñ gune yi seetaan moo tax suñ gune dañuy foog ne ëllëg ki si biir mën nañoo génn di weer seen suturam morom tudd tutam wax lan ko xamal wax yu bon yu xees yoo xam ne man suma gémmiñ du ci dal tey ci vidéo bi te loolu noonu it's not normal it's not good du ñëpp nga koy def mu jig la xam na ñoo xam ne boo leen ko defee man na leen a naqadi bañ xaru mbala mu yàq seen àdduna fa guud te xàq jooje du la jig xam ne ñoo xam ne it boo leen ko defee dana yàq sa image yow nit ñi lay gis dootuñ la respecté ñu si bëri xam na ñoo xam ne xat boo leen ko defee wala nga jóg def ko nii rek danga ko jàngal ñeneen ñoo xam ne danañ ko def nit te mun naa xam duñ ci mucc ndax mun naa xam kooku mun ne na yóbbu court for example wala jos xeex ak ñoom ñu gaañante jos it's just not not not good so fu mu jaar rek ñu génn wax si ndax community bi gis vidéo bi ba di ko def ay programme di wax wax jaa ngi siiw lii tax ma di waaye wax jii ni konoon du ma si wax ndax dafa personnel ay xarit lañ te lii dafa ruslu waaye lay kay seet lu tax nit di xam xarit ñaar fukki ak nangam te xóoluwoo xarit bi suñ waxee nga ne man depuis déewal xam naa ne yow baaxoo yow ñaari ñaari ñaari làmmiñ nga yow ngay wax lee pare wax lale yow nii nga mel nii nii nii ba pare nga continuer dina ak nekk xarit ba pare di lim yum la mas a def yu la naqadi yëpp lu tax baxoo ko xarit yaa ngi ba tey loolu laa xamul leneen lu ma bëgg wax loo xam ne waroon nañ koo mën a jàng si lii mooy su fekkee ne li mu wax ne jigéen ji noonu la dee def dëgg la kon jigéen ji na wàññi mu wecc wala ñun ñu mel noonu yëpp ñu wecc ko ndax nit ki de soo foogee ne ngay wax lii te fekk yow nii nga mel te kenn du ko nit ñi duñ ko xam nit ñi lu mu yàgg-yàgg danañ ko xam du ne par exemple nu kii génn def vidéo rek mooy tax nit ñi xam nit ñi noo sa jikkoy nit déedéet nit nga nit nit mere la rek jóg def vidéo du tax nit ñi xam sa jikko ku muus ku open minded ku dëgg ku ne du gëm du gëm li nit ki wax si vidéo bi yëpp rek parce que nit ki dafa mer soo meree lu ne ngay wax mbala su fekkee ne li wax dëgg la sax xam na kon lu ko waral lu tax loolu xew te ñun xamuñ loolu parce que kim xulóor ko génn par mi kim xulóor génnut wax su fekkee ne li wax ne noonu la kii kii def loo dëgg la kon kim xulóoti xëj na bu génnoon ba wax kii ni mel danañ xam li tax koo doon ko def lii par exemple kon nag benn boor rek doo ko mën a dégg si wax rek tax nga gëm yëpp loo kenn du ko def waaye li si war a jàng mooy jikkoy african dëgg bi nga xam ne fañ ko war a wecc man sa xam naa jikko yooyu wax na ba ne jigéen ji su meree fay yuuxu fay fay fay fay yuuxoon jëkkëtam xaw ma ba tëgg taabal bi di yuuxu jëkkëtam su fekkee jigéen ji moo def loolu waru koo def te war na koo wecci te ñun ñi nga ñooy def loolu war nañ koo wecc man ci ñuy jàng loolu laa bokk ndax man mii suma ma doom yi suñ ma meloo yenn yi dama dee yuuxu duma dee yuuxu yuuxu torop compared to yeneen african jigéen yi nga xam ne yuuxu ba néewee naan loolu lan la waaye dinaa dee mun a you lay like suma my voice <laughs> te loolu lu may jàng lak pour wecc ko te mu ngi tane mu ngi wecceeku nit ki kenn you mën ngaa wecc lu ne sa jëkkër tamit wala sa jabar soo jotee moom bul yuuxu nekkul jos pour xarit yu mel nii mën nañ koo jël ëllëg ñu wax ko like I said su fekkee lii lu xam la lay wax it's possible let's just be real ak ak ay everything moo xem léegi wala di jotee jëkkër ji warta yuuxu jabar ji saka su ngeen xamee ay doom doom yi nañ ko dégg bul foog ne tey tey doom yi newuñ fi lu ma wax lu ma neex wax ëllëg mun nañ ko dégg mbala seen yaay jottali leen ko mbala ëllëg mun nañ faane nga def ko parce que yaa ngi miin di yuuxu sa kanami doom yi di yuuxu seen yaay jëkkër ji loo mer-mer bu ko yuuxu man moom lu ma dee def man su man su ma nekkee góor boo xam ne nii daf ma meral dama dee dama du ma jos wax parce que mais bañ a wax lu ma lu ma naqadi lu ko naqadi wala ma wax lu ëpp soo dama dee noppi rek bul gis ma bëri wax gi su ma dëgg su ma meree góor dëgg damay noppi switch off everything like su fekkee ne yaa si néeg bi dana ma génn dem waaye fu mu jaar ngeen toog wax ba su ma xol bi su fiixee nag ma toog wax noonu laa dee defee man waaye nit ku nekk ak nu muy defee is different man loolu tam dama ko jàng da hard parce que trial naa su ma jotee góor di jéem a wax nit ki di wax suma xol bi di gën a tàng may wax nit ki di wax ma xam ne loolu du dox si laa jàng beneen méthode ma leen wax nii doomu aadama ku nekk dafay jàng rek soo foofu noonu laa bëgg a wax foofu noonu su fekkee ne loolu dëgg la wala su du dëgg yëpp doo si maata waaye ñun ni ñuy fajee façon problème boobu noonu laa bëggoon a wax foofu ku jotee sa jabar wala sa jëkkër wala sa doom wala sa ku ne toogal nga wax si jàmm rek jarul ngay fëgg teewul fëgg loxo yuuxu di rëkki-rëkki di kiriis ndax loolu noonu dafay tax gune yi wala kooku noonu bu respect am dafay wàññeeku si yow wala just I don't know it's just leneen lu ma bëgg a wax mooy jigéen ji wax ne fa bëgg a nekk président moo tax muy wax jigéen ji dafa bëgg a nekk président moo tax lii loolu yëpp fay tax nit ñi foog ne woon dafa xañaane jigéen yi ndax jigéen ji xam na raay pour bëgg a nekk président ku nekk xam na raay pour bëgg a nekk président soo bëggee nekk président ñëwal nga wan nit ñi lu tax ñu war laa gëm pour def la président répété répété sa bopp taxaw solu wax. behave ni ku bugg a nekk président ak ni ku mën a xamee réew te nga xam sa idea boo bugg a wax nit ñi rek nit ñi dañ la votal ñoom ñu si bëri because doo si matal góor o jigéen àddina si léegi dafay waaj a tukki lu jigéen di góor di def lu si bëri jigéen mun na ko def saka office work office work jigéen ñoo ko ñu si bëri ñoo ko dàq sax góor so it's fine su buggee nekk président nothing wrong with that loolu xam lu tax mu nekk di ko wax the whole time ah loolu dafa mel ni dafa xañaane jigéen ji kon noonu laa gisee foofu tamit leneen li ma gis loo xam ne si vidéo bii loo xam ne luñ si war a jàng la mooy nga xam xarit boo xam ne yaa ngi xam jëkkër te moom xamul jëkkër ngeen nekk ay xat ay xarit ay xat di xuloo ko juboo ko juboo xaat again man nu ma gisee vidéo bi rek lay wax de so dafa mel ni parce que jigéen ji xamul jëkkër te mu ngi nekk kële xarit lopp ñaar fukki xat te kële xam na jëkkër ba xam ay doom soo gisee lum indee kii jëkkatam ak doomam yi si wax ji waa lay kaseet yi mu wax yëpp du ma si toppaat sax ndax yéen yi dafa ëpp ah dafa mel ni dafa xañaane kii jëkkëram ak doomam yi ak famille bi ak famille jëkkëram bi parce que xamul lu mu waxul ci famille jëkkëri kii bi sax xamul rek lu mu waxul te sëy mat wala nit ku mat xamut moom ci boppam xamul jëkkër ak ay doom xam naa xaw ma da xam ne doomam de waaye xamul jëkkër mu ne xamul jëkkër waaye te moom la neex mu ne moo tax sëyut fine xam na ñoo xam ne seen xarit yoo xam ne dañuy choose pour buñ sëy mu neex leen ñu bugg a noos wala bugg a enjoy haduna wala jos di di xaar góor gu façon góor góor xurul xay na gu leen neex wala whatever ok léegi yow boo xamee jëkkër am ay doom nag ñu mere la si loolu xañaane la loolu te duñ la ko wax lay kay seet nu ma gisee programme bi rek laay wax de mën naa xam xañaane wut ko ko waaye mën naa xam xañaane na nu ma gisee programme bi rek laay lu wax waxam ji rek laay wax soo dafa mel ni moom dafa nekk kii xarit mu cuus ne bu sëy parce que moom mu ne moom la neex sëy bu ko neexoon tey mu sëy ndax moom àddina si xeet yëpp a ko bugg xeet yëpp a ko bugg a takk fine waaye dafa mel ni kon ñàkk sëyam gi fokk ak kii nu mu ñaar fukki at ak ñaar yi xam kii yëpp kii raw ko sëy ba am ay doom ah sëyee jëkkër jum bugganteel xam ay njaboot fa mel ni loolu fa ko métti soo ko seetee si vidéo bi parce que su ko méttiwutoon konoon yeneen yópp yi mu wax yëpp du ko wax parce que yópp yi mu wax yëpp fa mel ni fa bugg a tasse yi kii bi you know fa mel ni fa bugg a def ba kii jëkkëram dootu ko bugg mbokki jëkkëram dootuñ ko bugg doomam yi sax dootuñ ko bugg it's just insane dafa just hëpp it's beyond just because nit wax na vidéo rek nga yow la gaaru xaale just because nit wax na ne yow de xam na nit ñoo xam ne de fañ fañ lay fañ lay xañaane di jalos xam na nit ñoo xam ne de fa ñuy toog duñ def dara ba pare sooy def dara ñu di la xañaane loolu rek jaru yow li nga wax yëpp li nga wax yëpp hëpp na te jéggi na dayoo te respect bi suma maas yi xamoon si yow génn na te ñu bëri respect bi xamoon si yow génn na ñoo xam ne sax bëgguñ jigéen ji fa whatever the reason ah suñ tuxee nit te xam ngor tey wax dëgg seen xol bi seen respect si yow génn na ndax loolu de warut ta tax ngay wax yu ëpp yu yu dëgg yu yi ngay wax ni jigéen ji yëpp su fekkee ne loolu gaaru xaale la si yow te neexul la lay kay seet nga ñëw gaaru xaale jigéen ji wala sooy tudd tuddam sax boog nga xem boog si fi mu wax fi fi xem ndax moom de ñëwut weer sa ñaar fukki at ñaari nga neex ak moom xarit yëpp lu la xamal newut di ko weer de newut di ko wax kon nag yow waruloo woon a def lii su fekkee xamal nga ko ko su dee xamoo ko yow la nee nga wax ko su dee ngaa yokk wax ji doo sin matal lii nga def dafa ëpp te jéggi dayoo te ruslu su ba pare wax nga tamit ne yow ñaar fukki at ñaar yi nga nekk kii xarit yëpp lu bari kii xamalut la ko ndax wóoluwoo ko xam nga ne kii lu xam wax ko moo tax xamalut la woon lu bari kon nag na kii génn xas la su su paree yow pare nga fu la xoo danga ko xëyu na ñëw génn xas la ndax xamalut la dara yow li ko xamal moo raw again yaa ngi yàq sa der foofu ku dégg vidéo boobu dana la ragal yow ni nga nekke kii ñaar fukki at ak ñaar xarit xamalul la dara loolu moo wane ne yow féeg nga naafeq xarit nga soo nekkutoon xarit bu naafeq nu konoon doo nekk ak nit ñaar fukki at ak ñaar ba pare yow nga di ko xamal te moom du la xamal kon lii nga doon xaar xanaa bés ñëw nga génne yi nga ko xamal yëpp loolu nga doon xaar xanaa moo tax nangu woon mu xamal la mooy ne yow sa xaritoo gi ak moom xamoon nga ne danga ko mas a jàmbu benn bés xamoon nga ne benn bés danga mas a mer weer ko moo tax nga doon denc li nga ko li nga ko xamal di moytu pour moom bu la xamal loolu yëpp ay xarit yoo xam ne dañ leen war a moytu xarit boo xam ne moom dafay ñëw di la laajte say mbir wala yow ngay hubbeeku di ko waxal say mbir te moom du la waxal moytu ko ndax xarit boobu foo ko fekk mooy xarit boo xam ne pare na pour ñëw weer la wax li nga ko xamal yëpp moo tax mu di la nëbbu foo fekk xarit buy nëbbu moytu ko. loolu tamit lu ñu war a jàng la si wax ji leneen li war a jàng si wax ji mooy doomu aadama njaay su meree te xamut nu muy contrôler meram lu ko neex lay def nit mer na ba jël bakkandi boppam sax boobu kon nag buñ gis nit ku mer rek ñëw tax ñëw di yàq dari nit di wax rek tax ñu jël lam wax yëpp gëm ko man de wax naa leen in the beginning of the video nu ma gisee wax ji xam na si yu ma gëm xam na si yu ma xala gëm xam na si yu ma gëmut ndax jigéen ji moom kenn moo wax kële waxut number one mooy loolu number two mooy li wax ba tax muy wax jarut moom wax ju rëy ji mu wax number three mooy ku gis nu mu doon waxee aka di wax di ree aka di wax from di si xolam bi nga xam ne xoli soxot ak xoli xañaan moo ne si waxam ji si xolam bi du xarit boo xam ne danga neew nit ki ñaar fukki at xarit mu jàmbu la def dara lu rëy nga ñëw di wax di jooy ne ko yow di jàmbu nga ma tey fooguma woon ne danga ma def lii nanga ma ki naa ma déedéet dafa ñëw solu def me ko bam def vidéom ñëw di xas jigéen ji di ree di xas di hmm. seedut benn tiya xamu benn émotion xamul benn ronkoñ yëgalu ko yaramam sax kon dafa mel ni ñaar fukki at ñaar yi nekkaloon kii yëpp su fekkee mu ne kii duutal xarit bu baax moom it moo gën a bon kii noonu laa gisee vidéo bi man ndax man duma xam nit ñaar fukki at ak ñaar mu def ma lu war a ni ma jóg di def vidéo bi bu kii def te duma jooy suma ronkoñ du rot duma ko yëgal suma yaram sax solu ba jag mekaw ba jag ñëw kémméeral di wax man Amie Dee mënuma ko xam naa ne nag nit ñi dañ wute nii laa gisee vidéo bi ne moom xaritam gi mu neexoon jigéen ji xaritam gi du dëgg moom nekkutoon dëggu si jigéen ji su fekkee mu ne jigéen ji dëgguwutoon si moom it moom it dëgguwutoon si jigéen ji te moom vidéo bii nii lim ko yàqal moo gën lim koy defaral te ñun suñ community bi nañ xam ne yàlla buñ ma sa mer ba def lii ndax lii dafa so low and disgusting ku dof te naan kaana ba bay tëdd si mbedd mi sa warta def lii ñun nañ xam ne suñ community bi du yu ñuy def yëpp moom moom lañ war a toppandoor dalee ko ci man yu ma def yu baax jël ko yu bon yi sànni ko ne xam tamit ne nit ñi ñëw di wax si Facebook bii duhut ne nit ñi dañ war a nekk xuruxaane yu jógee xaajana ci peelu rek pour ñu mën leen a déglu suñ plateforme yi yëpp àdduna si dalee ko si yonent yi sax nit ñi dañ leen di déglu parce que mbiri yàlla bi ñuy wax waaye duhut ñoom seen jikko bi ñu xamee par exemple lu bon luñ def yonent boo gis fii xam ne yu bon yu mu def yoo xam ne boo ko toppoon doo ko déglu wàllu boo gis kon nag moom jarul muy wax ne jigéen ji li muy wax nit ñi si vidéo yi lu baax lu muy wax ak wax mbiri yàlla naa fekk tax mu di ko def parce que moom baaxul nangam nangam jarul muy wax loolu di yàq ni ñi nga xam ne ñu ngi ñu ngi déglu jigéen ji muy yàq jigéen ji si ñooñ pour buñ ko déglooti wala liñ dégluwoon si moom yëpp ñu sànni ko parce que nit ki su la waxee ne sangul sa taarata xolof njaay ko wax bu sanguwut sax loo koy waxee ne ko bul déglu sangu te doo bul dégle sangu doo sangu ku la digal sangu bu sanguwut sax fa la wax ne demal ñu rey la fa la wax ne sangul ba set xeeñ neex kon kay yow sangul rek bu sanguwul saxlu ci sa yoon yow fu la bugg ba digal la sangu kay yow sangoon léegi jigéen ji nga xam ne nit ñu bari dañ ko dee déglu su vidéo mi nit ñu bëri sax moom moo tax ñu muuru nit ñu bëri moo tax ñu xam yàlla dalee ko ci man suma marché ah xool ko muy gàmbiyeen ni man muuru di waare di wax mbiri yàlla ak wax nit ñi nuñ war a you know nekk defee yu baax ci ci ci ñu ma motiver la bokk man mii wax naa ko bi force in a vidéo ak gune yu ndaw yi suñ communauté bi gune yu ndaw yi yëpp suñ communauté bi dañ nit nit koo xam ne daf ñuy ñëw motiver wax ñu yu baax kon nag boo jotee nit koo xam ne mu ngi motiver nit ñi di leen wax yu baax yow balaa ngaa ñëw di ko tànc di wax yu xiis yi nga ko xamal pour nit ñi buñ ko déglooti wala ku ko doon déglu ko ne fi tër ndi ko tëb ci péelu xalaatal yow mbon gi nga bugg a wecc nit ñu baaxoon ñi nga xam ne kooku moo taxoon ñu baax nga bugg leen a wecc def leen ñu bon ndax loolu jar na ko bu la kii defoon lu bonit ndax loolu jar na ko sa ka bam la deful dara lu dul nga ne a la gaaru xaale ci vidéo rek vidéo bi daal dafa xiimu te jéggi dayoo te tiit te ba nga xam ne man ba tey mënumaa gëm vidéo bi masumaa gis lii ma juddoo tey te dafa mel ni jigéen ji nu mu jógee ba bugg a barke ba commencé dem Gambie di hibbi compagnie bi muy def nii ak def nii moo tax kële xolam bay gutteeku noonu la vidéo bi niroon moo tax mu jóg def ruujam bu ñuul boobu mais ni sef la bandi nag xol bay xañ-xañi nag muy jëfuur ak a kiris subhanallah nañ leen ñaan ñaan yàlla mu wecci ñu ndax jigéen jii day lay kay suy benn wala ñaari nit sax ci facebook bii moom wecci na leen ndax man sax de bu ma commencé di jéem a muuroo ka jéem a xam yàlla di ko suma vidéo yi xam na suma followers yoo xam ne man maa ngi leen di wecci man Amie Jobe mi nga xam ne xaw ma followers sax man fañ may bind di wax ne ñu ngi muuru bu ko sof man ñu ngi bëgg a xam yàlla bi ko sof man di jéem a toppandoo weccee ko jéem a xam yàlla bi ko sof man li ma sakantumaa kooku nga xam ne moom ma gën a ëpp followers suma maas yi man sax moom ci ñi ma wecc la bokk wax naa ko ci ay vidéo sax before léegi nga bëgg ñu wecc ñëpp wala ñi war a wecc suba yëpp nga bëgg ñoo ñëpp yàqu jos bi ko jotee nga ak moom loolu jaru ko xalaatal nit ki lu baax liggéey bu baax bi muy def di wax xat yi yëpp di wax lu baax léegi da nga bëgg mu noppi bu mu waxati parce que wax nga ne saa wu génnee wax yow da nga génn tontu ko da nga génn xas ko saa wu génnee wax ne nit ñu xañaan nangam wala nit warta xañaan nangam wala nit nangam moom suubaa moom yow lay wax loolu kay mooy ne bu mu waxati parce que ñun suñ communauté bi yëpp loolu lañ dee wax suñ jikko yi lañ dee wax leneen luñ war a wax jikko yi doomu aadama njaare la ñuy wax su fekkee jikko yi muy wax yëpp yow nga koo xamee ba tax nga mer jóg di jëfuur ak a kiris loolu yow lay gën a wàccee sa bopp te xàq dafa xam ndax jigéen ji mu ngi sëy xame ay doomam toog di jaamu yàlla ci sëyam bi nga ñëw di ko tànc tànc yii nit ñu soxot ñi di reex aka like di séddoo vidéo ba vidéo ba xam na forty something sia forty six taw ma sixteen thousand view te vidéo bu baaxoon genn bu baaxoon fu juróomi sia sax du ko am ñun na suñ bi lii moo tax baax si jafe ndax gi nga vidéo bu bënu nga def noonu mu am forty six sia mooy ñeen fukki nit ak juróom benn ñoo ko séddoo moo gisee vidéo bi tey nii ci ak juróom-benn juróom-benn fukk ak fukk ak fukk ak fukki junne juróom-benn nit ñoo ko seetaan vidéo bu ma yow boo toogoon wax lu baax nu konoon juróomi nit sax duñ ko seetoo te ñaari junni nit sax duñ ko seetaan boo waxoon lu baax saka nga wax lu baax sa jigéen ja moo tax wax lu bon yomb ci suñ communauté bi that's the reality man xam naa ko maa ngi def vidéo fi ne lopp ñetti at vidéo bu ma def time bu ma daan def vidéo su dara xewee nii nga jóg comme ça su doon time boobu la nu ko doon tey nu may waxee yow du nekk nii de nu ko doon tey danaa la tojal comme ni ko tojalee noonu di rikki naan ko te du nga xam ne danga fii nga may fekk ngay jaay pànk nu ko noonu noonu laay def su tombé la doon mu wecceeku nii nga xam saas de te jigéen jii nag nga xam ne moo tax ma maas yi wecceeku moom nga bugg a yàq te nu konoon tey danaa la tàccul ma nit di géewal la wax la loo xam ne sa bañ yëpp danañ kontaan xamaluma la dara waaye xaste ku neex ko man ndax yow vidéo bi nga cee won nit ñi noo mel noo melu sax nit dinañ foog ne noonu nga mel ndig vidéo bi wax nga ko léegi su fekkee ne jotee ngaa nit rek ñu baax ñu nit ki di di defar yëpp si àddina nga ñëw bugg a yàq loolu yëpp jos bi yaa ngi joteek moom est-ce ku baax yi dana ko def xalaatal loolu gis nga joteek ak nit xas ko yomb na jóg sa saay waaye xam nga lu tax amul njëriñ ak xam nga tax man duma koy def su ma wax ju bëri ji yëpp joteeg ni taxaw di xasante si booba ngoon duma koy def parce que nit ki wax naa leen ko si ba sonn loo xas ni kii rek ah de moo ngay ki pour nit ñi gis ne kii dafa bon rek de moo ngay wane yow sa mbonaay gi parce que doo listen to this doo xasee nit nii comme nga ne ko nangama nangam def nga ma ko ma ni def naa la nangama nangam wala ma ni defoon naa diw nangam ak nangam wala daaw defoon naa nangam wala déwén daawaati jéeg def naa nangam diw ak diw ak diw xam nga loolu kenn di koy xasee nit lu ngay xasee nit rek mooy yow nangam yow nangam yow nangam yow nangam yow nangam ok mooy ne yaa ngi woon àddina si ne yow ngaa baax kële dafa bon te loolu nag du mës a dëgg ba àddina tukki àddina si nit ku baax ku mës a def lu bon xamut te du mës a xam yonent sax meluñ ko waxuma laa ak yow doomu aadama njaay yonent yi sax xam ne history soo kon nit ku xam dëgg ku ne. ku dëgg kuy dund dëgg ku ne soo su gisee vidéo wala dégg la yow nga taxaw di tànc nit yenn tànc yu hëpp yi dip soxot tànc yi ah secret yi fukki xati ñàngam si gannaaw nga di ko wax nit di ko di waxtur nit ki di wax yëpp pour nit ñi xam ne kii la yénoo saf lay ku wét ku ne dana xam ne yow yaa gën a soxot parce que yaa ngi bugg nit ñi foog ne kooku moo bon yow yaa baax te da moment nga bugg loolu rek mooy ne yow da nga bon yow sa bopp so don't even bëgg mu xam mooy su fekkee ne gis na vidéo bi wala ku ko xam gis na vidéo bi na ko wax ne ko na continuer di ñëw di waxal nit ñi nit ñi jàng ci moom bëri na ndax lu baax rek lay wax gi nga lu baax boo koy déglu yow soo wétee déglu ko rek sa yoon bu mu ci ku la koy wax dof sax bu ne ci mbedd mi def taati neen mën na laa jàngal àdduna déglu rek liñ lay wax tam baax bul xalaat ne yow lu tax nga bu koy wax te yow ngaa bonde wala yow defoon nga lii daaw lu tax ngay wax lii yow nii nga meloon tax ngay wax lii non déglu lim lay wax rek su dee ku paree wecceeku nga su dee ku paree nekk nit nga soo parewut a nekk nit nag nga commencé di wax ne yow lii yow laa bi ko yaa ngi wut lay yaa ngi fiir génti léegi xam nga ne kii lim lay wax dëgg la waaye yaa ngi koy bugg a wan ne ko yow it bon pour bul yaa ngi bugg jël gàcce gi delloo ko ko lii tax ñun suñ communauté bi nag di wax naan lu tax ngay digle sangu te doo sangoo déggal mooy yéen dégg ngeen diw naan nangam xanaa du diw mooy yéen dégg ko loolu yëpp bi ko pare wu ñoo ko su fekkee dañ focus pour wecc rek fa ñuy xut lu ñu dimbali ñu wecc rek doo seen ma takku ñu ko jox kan la loolu bugg naa ko wax tey wax ne ñun ñëpp dañ leen continuer rek di wax si vidéo yi di def lu baax lu ñuy def lu ne buñ ragal ne nit mën naa génn par exemple xas ñi wala nit génn ñu xas ñu lañ noppi déedéet ku nekk looy def loo xam ne baaxul xam nga ko jéem koo wecc rek te nga continuer di dem continuer rek di dem no time pour gestu no time pour toog continuer rek di dem di forcer di dem that's the only way su dul loolu rek ngay toog wala ngay gestu di tarde so continuer di dem lu laa bëgg a wax teneen ne lu ma bëgg a wax mooy again soo nexee nga xarite xóoluwoo ko ba teg ko wax ko lu tax xóoluwoo ko pare nga ba ko bu ko ba rek te waxoo ko lu tax wax ko lu tax ndax mu mën koo wecci ndax mu mën a am beneen xarit soo nexee ni xarit te doo koy wax dara si yow waaye yaa ngi xam mbiram du xoo xarit bu dëggu te yow mi nga xam ne yow la nit ki di xam sa mbir te du la wax war ngaa bakkee xam sa mbir te la wax egeen soo koy ba wax ko li ma la wax nii nekk ko lu ma suma xarit gi ak yow parce que yow nga may nëbbu doo may wax yow yaay kan ak looy def te man lu may def dama la ko dee wax leneen li mooy again suñ mereeg nit doo seen matal lu ñu borom def nañ xem si lim ñu def rek wax lim ñu def buñ ci yokk famim yokk ci ay histirim yokk yokk su boobaa mer gi du feeñati dafay mel ni dañ soxot te bon te xañaane ko that's the vidéo bi fa ma dugg fa mel ni man maay jigéen ji wala jigéen ji fa mel ni suma mag la ndax liñ ko def nii de ku xam ngor te xamee xoli doomu aadama njaay ku ne lii dina la métti mooy li ñeen nit ñi di wax rek si Black Lives Matter bi Black Lives Matter ñun ñoo war def Black Lives Matter ñun ñoo war a tàmbali rayante mi moom si boppam loolu la tàmbalee vidéo bi di wax ne góor googu ni mu rayee dafa bon nangam nangam waaye ñun Gambien yi fañ soxot there you go yow ba nga tàmbali sa vidéo bi noonu kon loo ñëwee bokk ci Gambien yi soxot yi yow ndax sa vidéo boobu ko gis fay xam ne yaay champion yi Gambien yi soxot yi te yaa ngi jàngale soxot mi soxot mi rek ngay jàngale das das das da only reason pour nga def vidéo boobu pour wax ni ñi ne ku jotee ak nit ñëwal Facebook tànc ko wax li nga ko xamal ñaar fukki at si gannaaw xas jëkkëtam xas doomam yi kas njëkkeem yi yaayam xas everybody rek lii jéggi na dayo te ëpp na te vidéo ba tey mu ngi ko jigéen ja ko tiitu rusu ragalut mu ngi def loola ndam te loolu du ndam ku la wax ne la bu ko diliit bàyyi ko vidéo bi baax na kookaa ngi yow a xem xiis te xiis gii de gu leen jigée ngeen di mbër ndax dangeen ko jàngal gune yu bari yoo xam ne ëllëg danañ ko def te du leen du leen mën a jig dangeen si am xàq yu bari te nit ñu bari ñoo xam ne jigéen ji mu leen di jàngal lu baax it yéen jàngalu leen nit ñi lu baax keneen di ko def ngeen di ko yàq yooyu yëpp di freen xàq la yoo xam ne day àddina waru koo jar so maa ngi ñaan nag ñun lay I said ku mer nga xool ni ngay waxee saka koo xalitoon ay xat kuy def lu baax it defal rek luñ la xas-xas defal ndax buy fukk ñuy déglu xas yi de juróom-ñett si gore te baax te xam xolab nit yëpp duñ gëm xas te buñ ko gëmee it ne loolu nga def it du tax ba tey lu baax li ngay def duñ ko gisati mbala ñu gisee la comme xaj nit ku baax du gisee noonu nit soo nit ñi nga xam ne bugg nañ leen te xam nañ ne yéen a ngi def lu baax ba tey dañuy continuer di leen bugg xam dosin matal lu leen ennemi yi xas soo continuer leen seen liggéey bu baax bi te yàlla na fa suñu vidéo yu géej ci suñ communauté bi yàlla ñu si yàlla musal yàlla nañu yàlla may xol buñ mun a jàngee pour mën a wecceeku but bu yàlla sàkk ñu jéem a seetlu ñuy wecce suñ jikko yi ndax kenn mutut loolu rek laa bëggoon si vidéo bi tey ngeen bala ma xàq koo xam ne nag lu ma wax la vidéo ma dugg yeneen koy gis suma xol bi vidéo bi dafa daw yaram te dugguma te métti te ruslu suñ communauté bi sa ka magi jëmm yem nii di ko def moo tax fu mu jaare ma wax si bot yeer plan woon pour def vidéo bi tey sax dama nekk di jël break of YouTube bot yeer so ngeen xam jàmm dinaa leen gis beneen yoon su ma ñëwatee YouTube incha allah and yeah thank you for watching bye take